Euh, nous avons voulu mettre également en avant le cheval. Comme l'a si bien dit tout à l'heure euh, grand Alun Diao, euh, le PMU, dès qu'on pense au PMU, on pense au cheval. Et on a voulu faire un clin d'œil à nos parieurs, qui sont des passionnés et des amoureux des chevaux, en mettant en avant dans ce spot un cheval et le jockey. Et donc, comme vous avez pu également le voir, c'est un spot qui, touche les trois segments du PMU. On parle du PMU online, de l'ALR et du PLR. avec les innovations au niveau du PMU, online, euh, c'est destiné aux parieurs qui ne veulent pas se déplacer en agence, qui ne veulent pas aller au niveau de PLA. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de chez eux, euh, qu'ils le souhaitent, de pouvoir jouer au PMU à travers leur smartphone. Pour cela, il faut juste aller au www.pmuonline.sl. Donc, toute la campagne va se dérouler autour de ça. Il y aura le spot télé qui va passer, mais également des affiches 12 mètres carrés que vous aurez l'occasion de voir dès lundi, à travers Dakar et les régions. Euh, outre le PMU online, on a également voulu faire la promotion de l'ALR. L'ALR, nos chers parieurs l'ont dit tout à l'heure, c'est en jouant à l'ALR, en misant de petites sommes tous les jours, qu'un jour on devient millionnaire. Et là, on change sa vie. Comme également les témoignages nous montraient, ça En tout cas, nous, là, à la LONAS, c'est l'une de, de, nos missions et personnellement, c'est ce qui me fait plaisir dans ce métier. C'est vraiment de pouvoir voir que j'impacte dans la vie de ces Sénégalais-là et que finalement, euh, également, a notre contribution au niveau de la nation. c'est pour la LR. Maintenant, le dernier point qui me semble être le plus important, c'est le PLR. Au niveau du PLR, on a une innovation majeure. Cette innovation aurait pu faire l'objet de, la cérémonie d'aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que le PLR, on faisait des courses sur les françaises, des sur les courses françaises. Euh, depuis peu, on a décidé d'élargir notre gamme en euh, euh, permettant des sur des courses anglaises. qui se font dans différents pays, euh, Afrique du Sud, nous avons des courses au niveau des États-Unis, au niveau... Donc, c'est vraiment une innovation et on est au niveau de plusieurs pays. Donc, j'invite nos parieurs qui nous regardent à aller au niveau de nos PLR, à consulter nos programmes. Il y a beaucoup d'innovations et pas mal de surprises, en tout cas, au niveau de nos PLR. Comme l'a dit le directeur commercial tout à l'heure, il y a des campagnes de promotion qui sont prévues, des actions de terrain. En tout cas, euh, sachez que cette campagne, euh, nous le faisons sous Donc, euh, mesdames, messieurs, chers collègues, on voudrait également que vous soyez tous euh, avec nous. Et ensemble, je suis sûre que nous y arrivons. Euh, le slogan de, de le pays nous, nous rassemble. Euh, comme vous avez pu constater, vous avez vu les trois a personnages qui sont là. C'est juste une manière de faire un clin d'œil. Vous dire que tous les trois sont des passionnés du PMU, sont des passionnés du chevaux. Et que le PMU les ressemble, que ce soit le, le que ce soit celui de l'ALR ou celui du PLR. Et de la même manière, je peux dire que nous, aujourd'hui, qui travaillons à la LONAS, chacun dans son domaine d'activité, travaille pour la commercialisation du PMU. Donc je peux dire également que le PMU nous rassemble. En tout cas, c'est l'image, c'est le message passer à travers cette campagne. J'espère que vous l'apprécierez et je vous remercie. Directeur général, ñu ngi sargal suñu parier bu fi nekk. alors ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen ci xéewal muur leen ci muur ci seen njaboot di leen xamal ne directeur général femme bu gëm mooy def politique boo xamee ne day dem ci seen satisfaction moom loolu la ñuy wooyee ci tubaab mën nga koo wàccoo la waaye ñu koy wooyee orientation client L'ordonnance du pays où particulièrement par yi bi continuer di suñu rôle bi nga xam ne moo ko moom mooy créer ay millionnaires waaw ci année bi rek at bii nga xam ne jeexagul LONASE créé na 986 millions loolu am solo te at bu nekk da yokk alors suñu directeur général nag ne ñu leen ci benn plan de relance réew mi boo xam ne day gën a tax dafay gaña ñuy parieur mën a gaña bu gën a bari bu ko defee ñu daal di indi ay yu bees ci PLR bi itam ñu indi yu bees ci ARR bi daal di dugal euh, online nga xam ne sa portable rek ngay toog ngay yore jarul jarul ngay déplacé wu da ngay toog sa kër yor say programme yor say image daal di jël sa portable joué te boo joué tamit boo gagné lu ko sa portable ci porte monnaie électronique nga xam ne kenn ñëpp mooy innovation bi taal beneen bi nag mooy fii nag 2022 daañu lancé benn jeu bu ñuy naan marché commune internationale day tax parieurs bu ñuy joué fii sax Sénégal ci marché bi. bu leen neexee aussi ñu jëwaat ci marché yi nga xam ne dëkk yi nekk ak wàllu képp ñoo ko euh, bokk moom bu ko defee marché bu ñuy seetale day gën a bari boo ci gagné aussi am bu tàpp nga ci ñu yëpp ay innovation beneen bi mooy tey directeur général euh, bu président de la république son excellence Macky Sall lancé appel ne nañu taxaw. téye ndaw ndaw ndaw si ndaw ndaw mi téye ndaw mi buñ ko waxee menace ah mënut a mënut a ko ci xaar directeur général ne ci man maa ci jiitu maanaam damay créer ay point de vente di investir parce xaalis la ñu jëndee xaalis investir créer ay point de vente 1500. tasaare ko ci réew mi yëpp nga xam ne ku nekk denc gi sa bu ko defee ñu jël mille cinq cent jeunes recruter leen ci biir ñooñu yaakaar nañu dem bu baax waaw politique boobu nag dañ ko continuer. question yi nga posé euh, cent onze millions xam nga ne ñun LONASE ñii ñoo ñuy tax ñoo tax a dund mooy panier ba nga xam ne plus ñuy distribuer ay ganaar plus dañuy gën a kontaan loolu moo ñu daal ci ñun moo tax ñu leen di féliciter di leen sargal waaw di ñaan suñu borom defal leen tawfeex ak taysiir ren bi nag du ma àggali samay wax sans que ma féliciter yi nga xam ne ñoom ñoo ñu nekkal ci naaj ba di tàndam ñii mën a kontaan waaw ñu ngi fii ak seen i représentants. waaw di tam di remercier suñu grand yi nga xam ne ñoo ci déplacé wu les pionniers du pays bi Aliou Diaw nga xam ne maanaam boo ko gisee ci télé ba ñu wax affaire pays bi sa xol day seet da ngay am amoo a fas Michel Préra nga xam ne tamit pionnier du pays bi moom gars du journaliste waaye ñoom ñoo fi sànc pays ñoo ci daan liggéey di ci sacrifier seen jeunesse yëpp ci pays kon ñu leen di sàngal di leen gërëm. waaw di gërëm ñëpp ñi nga xam ne à commencer par les journalistes ñi nga xam ne ñu ci événement bi waaw soixante douze millions warul tàqale kenn ak sa bopp ah, di ko eh, sant it ñi nga xam ne mooy LONASE ndax LONASE ñoo ko fi indi parce que xëy na bu tax na LONASE feneen laa koy amee waaye du ko amee foofu loolu daal laa ci. est-ce que mën nga ñu fàttali nan nga def yow ba gañ tey somme def comme dama koy faral di def rek. dem naa grande Dakar jaar naa fa dem naa ci kiosque bi joué naa dem résultat ma téléphoné laaj résultat ñu ne ma ñu wax ma résultat bi ma gis ne gagné naa mhm. waaw mais nag wax dëgg yàlla du du daal lenn loo xam ne lii daal kii na ma def na ma ko wax dëgg yàlla. waaw ma yeboon ne parce que defe naa ma yeboon ne 96 parce que 96 laa ci njëkk dem ci loolu ñu doon wax millionnaire. Euh, millionaire bi amoon naa ci France amoon naa ci 10 millions kon ma ko dee yàgg na damay toog ab diir nag du ko def xëy na nag dama koy def daal ci gàttal. effectivement li ma ci nar nag nekkul loo xam ne lii lu ma mën a wax ci directement la ndax comme dama yor njaboot yor famille balaa ma ci jël benn benn dogal damay toog ñoom ba kenn ku ci nekk ma am ci sa xalaat ndax am naa ay xale te fi mu ne maa ngi bëgg a nekk mag. la ngay wax sa bokk pare yi waaw mbokk parieurs yi xanaa ñoom ñëpp ñu dem di jënd rek ndax parieurs yi kenn ku ci nekk saa yoo demee ci kiosque bi di jënd la ngay bàyyi xel mooy gañe kon nag nii ñu ko mu dalee ci suñ ko yàlla na ko dalee ci ko parieurs yëpp te it di wax waa LONASE aussi parieurs yi ñu ngi leen di ñaan augmentation bii ñu mujjee def mu ngi sonal parieurs yi mu ngi sonal vendeurs yi ndax fukki dërëm bii ñu ci teg fukki dërëm la boo xam ne weccet dafa jafe 50 francs dafa jafe te mu ngi nekk problème bu rëy ci diggante parieurs yi ak euh, vendeur kooku daal moom parieurs yi moom nee na ñu ngi ñaan Lonase bi seet naka lañ koy lijjantee. bi bon gagner c'est c'est rien parce que pourquoi depuis en 87 maa ngi joué damay gagner parfois un million wala deux millions wala cinq cent mille comme ça mais pour la première fois ma gagné somme bu toll nii voilà c'est ça. moo tax sama me dérange même pas bon buñ may woo sax pour may ñëw sax je prends tout mon temps pour dafa mel ni ku ku may jox ñaar dërëm. donc vous êtes habitué. je suis parce que je sais que plus tard dinaa gagner une somme importante donc euh, ça ça m'a pa m'a et aussi je maa ngi ñaan. parieurs yi ku nekk na nga jouer pour am dara tant que tu joues pas tu gagneras jamais tant que tu joues y aura un jour te booy gagner sax surprise la lay la lay def parce que gagner or c'est pas mun peeni loolu chance la gagner or c'est pas ma mun peeni déedéet loolu chance la nga jàpp des or tout ça la bu dee des or lay lay wax kon fii day fees parce que ñëpp ay jàpp donc euh, maa ngi ñaan parieurs yi ku nekk euh, il faut jamais se décourager tey perte na suba dina gagné suba nga perte gannaaw suba di nga gagné jusqu'au jour que tu vas gagner loolu papa du ñàkk nga am ay projet yoo xam ne yaa ngi koy xalaat si non pour le moment bon moi je na parce que loolu PMI c'est pas loo xam ne pour un projet boo gañee nag nga soog a xam ne li nga koy def li ngay def boobu ngay soog parce que duma joué permis pour def lii nan na ça je n'ai jamais pensé ça. waaw mais léegi gagné nga nan nga koy def. mais du ma gagné lépp ma may si parce famille. j'ai des enfants. am na xam ne ñoo la mag. bon donc euh, il faut ma toog ak sama famille bi je ne suis pas responsable de moi-même maintenant j'ai des enfants ki ont des 19 millions 76 mille.